comme ni ko jëwriñ bi ñu dénk njàng mi diggee woon ci wàllum tijjite école yi fii ci daara bu mag Mangi administration bi tàmbali na ko tey. voilà comme ni ma ko waxee tey la woon entrée administrative bi sama professeur yi fi gis ngeen leen ci biti ñu ngi toog ñëw nañu jël nañu seeni emploi du temps d'une manière générale mun nañu wax que ça s'est très bien passé. door nañ ko ci jàmm waaye nag problème assainissement nekk na lu leen sonal. ici am nañu problème mu assainissement parce que peut-être euh, tawul ñëpp remarqué nañ ne fan yi tawul mais bi muy tawee dernière pluie en tout cas sama école dafa feesoon dell ak ndox mais je remercie le bon Dieu comme ni ma la ko waxee sànq les sapeurs-pompiers sont venus m'aider dégager nañu men euh, l'eau maintenant il reste le désherbage moom lay xaar actuellement principalu bile daara nag moom jàpp na ni rek ngir ñoŋal concept ubbi tey jàng tey faw ñu woyal organisation ñu tel ci jóg. la solution yi ni ma la ko waxee noonu rek il faut ñu assainir def des canalisation nest pas pour di évacuer ndoxu école yi assainissement pour man mooy l'unique solution il faut que école yi ñu raccorder leen dans les circuits. pour que vraiment bu bu ndox mi ñëwee mu dem te bu ñu xaar aussi mois d'octobre pour di di di def yenn travaux yi parce que pour man dafay dafay xaw a tôt tard dès la fermeture des écoles il faut que ñu teg des plans pour vraiment aider ces établissements wala teg leen ci ay environnement vraiment yoo xam ne c'est viable quoi pour que l'ouverture se se passe normalement voilà. mu ñuy xamal ni rekk ñoom dinañ sàmm lii di décret bi ñeel wàllum inscription bi nga xamante ni nguur gi teg na ko fii